يا مكرم ضيف جارمتا boroom tuuba بسم الله barke borom noo ngi leen di nuyu bu baax te di leen ziyaara di leen balu àq tey baal ñëpp àq gannaaw loolu yi seen naafila guddik tey di guddik ñaar fukkeel gi ak benn ci weeru koor Serigne Souhaïbou Mbacké nee na ku ci julli ñeenti rakkan rakkan bu ci ne nga jàng faatiha benn yoon jàng xul huwallaahu ahad ñaar fukki yoon ku def loolu mel na ne ku moomoon àdduna sépp ak li ci biiram dundale ko ci yoon yàlla maanaam dépensé ko ci yoon yàlla te mel na ne ku jàng téereb tawreet ak téereb injil ak téereb zaboor ak téereb furqaan te alxuraan te buy génn àdduna dana mel ne bis bam juddoo ci ñàkk ay bàkkaar set wicc ci lay def ciy bàkkaar yàlla nañu ko yàlla man loo te nu def ko te def ko nam ko taamoo tamu mu nangul nu ko te fulal nu ko te làqal ñu ko fu yàq yéegul barkeb Seexul